maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu euh, seen mbokk mbokk internet yëpp di nuyu euh, waa kër gi yëpp di waa Dakaractu damay dégg débat bi temps yi yëpp rajo yi di wax ñi siy wax te ñi siy wax mënuñ la wax benn yoon boo xam ne ñun am na benn yoon boo xam ne wax nañu nomination maire euh, maire de Dakar parce que nag ñun suñu rôle la ñu nekk en tant que au conseil des collectivités territoriales dañu nekk pour jox des avis motivés au président de la république si wàllu décentralisation kon su ñu toogee tey foofu euh, am question boo xam ne ñu am tey thème boo xam ne mooy équité territoriale nekkut ville de Dakar rek la ñu waxtaanee les ville capitale de région la ñu doon waxtaanee te du ville Dakar kese ñi nga xam ne nag ñooy wax seen rôle la ñu nekk ñun nag suñu rôle la ñu nekk ñun tamit mooy réflexion moo tax ñu jóg toog te di la wax ne kër googu ñi fa nekk muy institution boo xam ne la tey euh, ay autorités yoo xam ne ay anciens ministre de la décentralisation ñoo fa nekk ay ñoom maire ñoo fa nekk ay conseillers municipaux kon je pense que ñi nga xam ne ñooy wax ëppuñu leen xam-xam ëppuñu leen tamit loo xam si xam-xam si wàllu décentralisation ba nga xam ne dinañ fa wax loo xam day delloo tey Sénégal ginnaaw ñun nag daf ñu jaaxal bu ñu déggee ñuy wax nomination maire de Dakar mais nag li ñu wax mooy ñun dañuy xalaat si nan la ñuy def parce que kenn ku ne xam na ne fii ak 2035 tey population Sénégal dina yegg euh, à cinq million kon bu ñu tolloo foofu ñun li ñu war a def mooy xelaat ba nga xam ne parce que ku ne ak xam ne ne ak trois de la décentralisation bi ñu si ñëwee muy communalisation intégrale tey euh, ville de Dakar amatul territoire comme tey capitale bu mel ni tey euh, conseil départemental Kaolack comme tey bu ñu ne ñaajo tey ku ne xam na ville bi nu mel léegi kon war nañu xelaat yan euh, anam la ñuy war a mun a gérer dëkk yooyu ba nga xam ne Euh, dina waxuma dinañ mën a territorialiser les politiques publiques ba nga xam tam dëkk yi seen doxalin dina gën a mën a mucc ayib loolu la ñuy waxtaan mais nag ñun dañu tëju di xalaat kon ñi wax mënuñ leen tontu suñu ñi nga xam ne ñoom la ñuy waxal mooy askan bi bés bu ñu paree dinañu te duñu tontu askan bi direct li ñuy xalaat président Macky Sall lañ koy salaatal mais xalaatuñ rek pour président Macky Sall dañuy xalaat au delà de moom. bu fi nekkatul ëllëg tamit Sénégal nu ñuy def ba mu dox ba euh, avancer si wàllu décentralisation kon loolu suñu nekkee di si xalaat kon du ñu tontu rek bu mënuñu jël débat yëpp di ko politiser il faut nag am na foo xam ne ñu dépassionné débat bi di wax li nga xam ne mooy jël jënale Sénégal kanam parce que Dakar mënut am rek benn référent kenn rek moo tax ñuy wax Dakar déedéet dakaar ñëpp a ko bokk capitalu Sénégal la kon war nañ see mun a xalaat xelal si le président de la république si doxalin bu gën a mucc ayib si loolu la ñu nekk ñiy wax nag duñ leen tontu bés bu ñu paree si li nga xam ne ñu ngi siy liggéey dinañu jébbal le président Macky Sall li nga xam ne liggéey nañ si te yaakaar naa ne bu ko tegalee Sénégalais yi bu leen ko proposé dina doon li nga xam ne moo gën si ñoom ñiy wax nag nañu xam ne mënuñu wax ba delloo ñu ginnaaw. tey ma jox la benn exemple rek dëkk bu mel ni Abidjan Abidjan tey Dakar Dakar rawu ko. bu ñuy wax tax tey dakaar gënu ko rafet dakaar gënu ko avancé si wàll décentralisation kon suñu joxee exemple am tey pourtant am na ay communes yoo xam ne ñoo ko wër mais capital bi tey euh, district la boo xam ne ña nga xam ne ñoom ñoo nekk di ko gérer dañu dëppandoo ak état parce que ville de Dakar tey fu mu toll question yu gën a majeure la war a gérer parce que tey ku ne xam na ne ville de Dakar si si commune la nekk kon ban fan mooy territoire am mu ngi mel ni tey conseil départemental Kaolack mu ngi mel ni conseil départe euh, ville de de Thiès ak amuñu territoire kon lu ñuy def rek ci communes yi lañ koy def te yaakaar naa ne maire yooyu dañuy gérer seen communes yi euh, ñu en toute responsabilité amut lenn loo xam ne keneen war na ko mun a imposer leen ko. li ma jaaxal nag mooy débat bi xëy na ñooñu nag ñu ngi seen rôle mais nag nañu bàyyi des fois di passionner débat bi. bu ñu demee si des questions yu importantes yu intéressant yoo xam ne day jëmale Sénégal kanam yaakaar naa ne ku amul loo si wax dangay ngay war a noppi bàyyi ñi nga xam ne ñoo am xalaat di xalaat ñu xalaat ba teg. waaw moom moom laa lay wax nee naa la li nga wax noonu léegi dëgg la mais nag ñun dañu tëju pour liggéey comme dañu tëju pour liggéey ñu di tontante ak ñu nekk ci biti. li ñuy def mooy tëju liggéey li ñuy liggéey bu ñu paree nag booba président de la bi nga xam ne moom la ñu war a defal un avis bu ñu ko joxee avis boobu dina ko teg ci kanamu sénégalais ñu gis ko mais nag fi mu toll nañ doon def mooy 19 communes yi nekk Dakar kenn ku ne bu élection locale jotee da ngay amaat sa maire mun nañu xalaat ba nga xam ne maire yooyu nga xam ne ñoo ne si 19 commune yi dañuy ñëw nekk nekk euh, nekk si ville de Dakar parce que tamit ville de Dakar la muy def si ay territoire commune la koy def parce que ville de Dakar amul territoire loolu nag il faut ñu xalaat si parce que tey moom laa lay wax dëkk bu mel ni Abidjan tey district la te pourtant Dakar gën a avancé Abidjan mais dañu xool dañu dem ba waxtaan ba seen décentralisé seen mu avancé de telle sorte que dañu xalaat ne ville bi kat waratu nekk ville boo xam ne day doon ville boo xam ne dañ koy voté budget te du am lu mu ko def fu mu ko def. communes yaa ngi fi les 19 communes kenn ku ne am na budget mu ngi koy doxal ni mu ko war a doxalee kon ville de Dakar mun na doon district mun na doon leneen mun na doon leen sama xalaat la ñeneen si au conseil yi ñoo xam ne ñoo ma gën a seen euh, xam-xam moo gën a màcc fuuf si wàllu décentralisation wax naa ko léegi des anciens ministres des maires ak lépp kenn ku ne day indi xalaatam gis nga thème bi ñuy wax nii muy équité territoriale le président Macky sax du xam thème bi nga xam ne ñun moom la ñuy si la ñuy liggéey dañ si discuter ba d'accord si ñëw teg au conseil yëpp waxtaan si non man loolu laa bëgg nga bàyyi ñun waxat waxtaanee wuñ Dakar kese les villes capitales régionales la ñuy waxtaanee waa mais Dakar mooy ñi mu intéressé ñu génne di wax parce que Dakar moo leen intéressé mais ñun li ñu intéressé mooy les villes capitales régionales nan la ñuy def ba seen doxalin gën a mucc ayib kon waxuñu waxu dakaar rek te président Macky Sall thème bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee au niveau du haut conseil moom xamul sax thème bi li ma li ma wóorte xamul thème bi parce que ñun même la présidente du moom mooy proposer thème dañuy ñëw waxtaan en commission xalaat ne thème bii la ñu war a waxtaanee parce que wax naa la ko léegi nee naa la ay maire ñoo nekk dan dans dans le conseil maire yooyu dañuy jànkonteel ak ay problème seen seen au niveau des territoires seen territoire yooyu problème yi fay jànkonteel nag dañuy ñëw di ko wax loolu yëpp nag la ñuy boole waxtaanee ko ba génnee benn thème ku ne xam na ne équité territoriale euh, thème boo xam ne la dafa nekk sax en en parce que tey boo xoolee. territoire yi dakaar ni mu mel tey ak Kaolack différence am ak Thiès loolu yëpp loolu wàllu équité territoriale la si wàllu nag si fànn yëpp loolu nag ñun dañ ciy waxtaan jox si président Macky Sall xelaat yoo xam ne gëm nañ ne bu ko doxalee dina doxalin dina gën a mucc ayib. moom lay wax xam nga moo tax problème bu jógee rek yéen journalistes yi tamit loolu am ngeen si rôle bu bu bu mag boo leen war a jouer yenn problème yi bu amee dangeen di dem si source bi ngeen laajte pour am la bonne réponse parce que ñi si tontu yëpp euh, mënuñ la ne ñun lii lañ waxtaanee parce que mënuñ ko xam si biir au concept lañ ko waxtaanee te looy tontu nag na fekk nga maîtriser la question xëy na ñi nga xam ne ñu ngi siy wax xamuñu maîtriser wuñ la question parce que waxuñ nomination dégg nañ rek presse bi wax ñoom ñu tontu si li presse bi wax mais li presse bi di wax ak la ñuy waxtaanee wax dëgg yàlla c'est diamétralement opposé voilà c'est une bonne question parce que statut des maire boobu nga wax ñun dañ ci liggéey ba pare ba jébbal avis bi le président de la république non proposition yi ñu def mooy euh, oo nañ AMS muy AMS muy ministre de collectivité territoriales ñoom yëpp dañ leen woo auditionné leen les maire yi nga nekk au nekk au niveau du conseil au conseil aussi ku ne day wax xalaatam mais nag avis yi nga xam ne ñun dañ koy joxe waruñu toog du ñun ñooy toog di ko wax le président de la République la ñuy jox avis yi moom mooy xool li nga xam ne moom la jugé nécessaire ak li gën mu doxal ko mais je pense que statut des maires loolu moom dépassé nañ ko te def nañ ci avis yoo xam ne dañ ci déggoo ak l'AMS déggoo ci ak le ministère ba nga xam ne li gën ci maire la statut des maires dina changer incha allah rabi te yaakaar naa ne le président Macky tam mu ngi ci dynamique doxal loolu nga xam ne moom avis boobu nga xam ne moom lañ ko jox si tout thème ma lay wax nii nga xam ne jël nañ rek ne ville de Dakar pourtant pourtant chef de quartier chef délégué de quartier mu ngi si les chefs de village aussi mu ngi si ñu ngi koy waxtaanee l'intercommunalité ñu ngi koy communal waxtaanee la transcommunalité loolu yëpp ñu ngi koy waxtaana waxtaanee kon waxtaanee wuñ loolu kese xanaa kañ <laughs> dañuy daal ñoom li leen intéressé rek lañ ne coppet te ba léegi tamit nomination ville de Dakar ñun waxuñ ko fa. waxuñ ko benn yoon te yaakaar naa ne li ñuy def tam bu ñu paree mënuñ leen tontu instant yi non li ñu wax ni statut spécial lu ñu wax pas ville de Dakar rek non non non pas ville de Dakar rek dañu ne war nañu xool les villes capitales régionales parce que ku ne xam na ne euh, jamono day dox te le président Macky Sall bi mu ñuy ak acte 3 wax dëgg yàlla def na lu bëri ci décentralisation territori territorialiser les politiques publiques aussi am na loo xam ne war nañ si dox ñun suñu liggéey la pour ñu dox si di si conseiller le président Macky Sall ñu ne nag nañu waxtaanee si ville capitale régionale yooyu waxtaanee parce que ville capitale dañuy dañuy rencontrer d'énormes problème am na loo xam ne sax peut-être bu suñu waxtaan bu paree ba ñu ba ñu jox avis président di ngeen gis ne sax day gën a yokkaat ville de Dakar parce que population de Dakar bu ñu jaxaseek ñoom parce que euh, ñoom dañ doon élire Dakar Plateau ville de Dakar Dakar Plateau lay la la nekk pourtant Dakar Plateau dañuy continuer di élire seen maire parcelle même chose euh, nu mu tuddati euh, Patte même chose ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon bu ñu jaxaseek ñoom kenn ku ne dinga am sa maire sa commune. moom laa lay wax dama ne la wax naa ko léegi sama wax xanaa keñ da nga buggaat da nga bugg leen non li may wax dafa dama dama wax lu leer dama ne ñun dañuy proposer li ñuy proposer. Euh, ay ñu nekk ci au conseil bi la ñu seen ñu am ay xel yu màcc ñu am ay ñu xereñ muy ñoo xam ne ñii ay maire lañ ñii ay expert lañ ak leneen ak leneen ñoo composé au conseil bi dañu teg la question sur la table ñu ngi soo commencé commission yaa ngi liggéey commission bu ne day waxtaan def avem Euh, proposé commission bu ne AVM bu ñu paree la commission une bi nga xam ne moo ëmb commission yëpp ñooñu tam waxtaan def un avis ñu toogaat conférence des président toogaat bureau waxtaanaat doog a avis bi doog a mën a yegg ci président de la république si loolu ñuy wax nag tuddaguñ nomination maire de Dakar tuddaguñu waaye nag gis nañ ay exemple yoo xam ne ma jox la ko léegi may la exemple mel ni Côte d'Ivoire Abidjan c'est une ville boo xam ne kenn ku ne xam na ni mu développé kenn ku ne xam ne dakaar gënu ko rafet Ganaar gënu ko développé kon mun nañu xalaat kenn ku ne loolu sama xalaat la te wax naa ko keneen tam am na beneen xalaat xalaat yooyu nag la ñuy dajale xool bi gën ne bii moo gën ñu proposer ko le président de la République mais voilà mais nomina pareeguñ nomination moom tudduñ ko benn yoon muy début kii bi ouverture session ba ci commission yi tuddaguñ fa nomination au conseil euh, maire de Dakar waaw session moom deux mois lay duré commencé nañ mois de mars la ñuy la ñuy pare incha allahu rabbi non APR problème amu fa sax parce que ñëpp si APR tey président Macky Sall leadership président Macky la ñu gëm moom la ñu àndal kon man li may wax rek mooy kenn ku nekk APR parce que ambition nag kenn mënu ko tere am kenn ku mu neex am sa ambition mais amal honnêteté tamit président Macky bi nga xam ne moom la yàlla dénk nguur wi pouvoir mu jël si pouvoir bi jox la boo demee ba nga xam ne mënul topp si am nga ne ko waaye la eh, eh, la yéwén président Macky Sall ma man maa ngi dem pour préparer 2024 dañu am honnêteté def ko mais mënoo ne si biir parce que am na loo xam ne sax yàlla du la si jàppale parce que président Macky Sall ba si tolloo ak d'accord ak leen doxalin dafa tekki mbooleem ndomb tànk bu ñu ko def joxoon mu delloo leen ko loolu mooy dignité delloo leen ko demal boppam ña ko gëm topp ko ba yàlla jox ko tey li nga ko jox mais ñoom i tamit mënuñu président Macky jox leen li ñu yor yor ko di ko xeexee nekk ci biir parti bi soit ñuy monter ay jeunes soit ñuy nekk di jaxase mais yàlla du leen ci jàppale te damay nag ma ne fa ma ne président Macky laa àndal mooy benn leader laa am muy moom te leadership am laa gëm idéologie parti bi mu yor muy bi mu am muy APR man moom laa gëm kon fa ma nekk tamit su ma gisee ku koy def dama koy xeex soxlaw ma nag dem ci télé wala dem ci rajo di wili pande kenn waaye nag dinaa ko xeex ak ma manière di si nag woo ñi nga xam ne ñooy militant APR yëpp ku nekk di liggéey à l'encontre li président Macky def nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko dénoncé parce que tam mooy dëgg munoo ne si biir président Macky Sall jox la ay cër nga nekk si biir ba pare di ko xeex te man damay yox koo lim ku ñu jox noomu tànk parce que le président Macky na li mu def Sénégal kenn ku ne gis na ko ñuy défendre ñoom parce que président vision la am mise en œuvre bi ñi mu teg jox leen ay ndombu tànk ñoo ko war a def mise en œuvre boobu nag bu dee day def lu ay choses yu excellente au niveau du Sénégal muy dans le domaine de la santé muy agriculture muy feneen ak feneen ñu jël di si teg seen tànk di jaxase pour mun pour mettre ko en mal ak ak l'opinion man je pense que ñooñu jaru mérito wuñu ay poste te ku ko siy def tamit yàlla du la jàppale